jërëjëf Serigne Touba jërëjëf si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul acca nga laama borom daaru nu reeni ay sant yàlla jul si yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant waa parcelle lépp di bëgge waa axlu làmm di bëgge ñu ma toogal ni ñëpp di leen ziar di la bëgge yow idi bu baax baax ah. ba tey dara làmb moo boole ñoom rek bilaay du loolu sax du sarax du dara lam moo ma boole ñoom rek wallaay bu ma boole waat ak ñoom nii sax noonu lay demee dañuy bëre waat <laughs> noonu la demee rek daa es bilaay yow ñaari xale foo na ah, waaw réparé daa nekkoon si yoon bi def ay preuve ma nekk sama yoon def ay preuve ba yi lamb boole ñu noonu rek la demee aa waaw ni ma ko doon waxee xamu làmb rek ndax réparé si làmb rek laa xama seetaan naa ko mu bëre naanaan la yàlla ñu suturaal ma ñu ndam si ko rek waaw waaw jour boobu moom wax dëgg yàlla li tax différence bi am mooy combat bi maanaam gars ñu si taaj ko waa wax ñu lu fi nekk xam nga xam nga tamit doo ay magum jëmu ñu bàyyi seen yite xam nga di sonn si yow man sa waay nga nekk xam nga gëmoo maanaam gëm bi des quoi mais boo xoolee combat bi gëm-gëm bi côté yëpp maana dafa gën a yokk quoi parce que gars yi woo ñaax ñu tamit wax ñu tamit nañ ñoom ñaax ñu fu la quoi di basé yitte tamit xam nga côté récupération beeg yooyu noonu xam nga may ñu si dara fu ñu gis si mbir bi tëbal ñu daax ñu xam nga moo tax laa ñu ba ñu ñëwee changement am na ko ak bu anaconda bi doon ñëw. waaw combat bi moom macha allah mais liggéey nañ si moom bu baax baax li ñu doon liggéeyoon moom pour sax réparer pour làmb suñ carrière la quoi mais nekkul mbër bi quoi dañ liggéeyal. non mais mooy lu ma la wax mooy réparé lañ am jour boobu mais ñu dañoo doon liggéey ngir suñu carrière waaw. waaw parce que père dafa ma ne caabi du pour daaji pour ubbi la waaw moo ne du pour daaji pour ubbi la waaw maanaam boo xeexee ba gis bunt rek demal. Ah. waaw père mooy faral di wax loolu ma ne ak lu munti am sa loxo bul nay nekk si biir quoi waaw ah, moo tax bañ jàpp ne boo xoolee ba ñu njëkk a jàng sama loxo ci kaw la nekk mais après waxu père dafa ñëw sama bopp direct parce que laa dugg sama loxo sol ko dëbb ko sol. Ah. bu baax waaw père moom luñ chaque jour lu mu lay tere si làmb boo defee gis ko. waaw foofu bari naa fi xelu père bu baax waaw. nice. waaw lu ñëw sama xel la rek man moom awma problème boobu quoi su ma jàppee rek waaw damay actionné bëre ko waaw parce dañoo foowee bëre moo tax. sama huitième victoire waaw. waa fi ma jëm comme que saa yi ma ko waxee tamit du tere booy dañuy daw ñoom ñemewuñ li ma la fi waxoon rek. moom jeex na ko waa parce tey jii boo xoolee man damay daan pour avancer mais saa daane dañuy toogaat di xaaraat benn booy defaat preuve ñu ne Anaconda jël ko. est-ce que Anaconda tamit nekkul ah, gis muy leer ay temps ileer gumba bi laa yoroon. bilaay loolu lañ ma bëgg a noonu lañ ma bëgg a def si làmb ji quoi maanaam di ma xaarloo non non nii nii nii nii nii combat bu am coolaay bëre bi incha allah parce que gars yi sax nee na am nañ tool nii ba suñu ma xam ne ko noonu si làmb la ñuy toog man a koy bëree ji ah. waaw nice te ma yab wax lépp ñoom la man maay bëre mais lépp ñoom la gars yi toog ni wër ma nii combat boo xamante ne ku xamuñu ko fi mu jëm mooy booy nga xamante ne am nañ coow lam nañ ñoo ñu bëri rek waaye booy am coow lam di laa la wax am na si booy yoo xamante ne am na si booy yoo xamante ne am nañ coow lam ma ñoom lam booya lañ non du ma lim seen tur yoo xam nga man yoo xam nga lu mu demee bu baax waaw man bàyyi daaro laa ragal wul taxuma fenn morom bëri nañ si làmb ji billaay comme man ni may def nañ def noonu rek parce que réparé bu ñu waxee rek cadre làmb mag moom làmb boole wuñ mais xam ne ma fi toogee di xaar may taaral yaa ngi dem wóor na sëñ Tuubaa ma jël ko mais gars yi bu ñu doon def noonu

gaa ku pare rek pare naa ne man naas pare waaw ñun pare lañ naas mais mbëri nañ ñu jël rek mbëri ñu war a bëreel. waaw xam nga man boo gis du yow yow yow boo gis yow la waaw ñun buñ dee ay français buñ nekkul français lamb ji wane na ko. Ah, waaw wax tuuti lu bëri rek. wax tu jëf lu bëri saa morom leen di wax xam mooy loolu yow émission yi nga def yow gis saa ñaay ñi may tudd ñëpp après dañuy dévier moo bu gaatu ma tudd kenn saa yi mag on la fu dañoo ñu bëre on waaw on boobu ba léegi ba mu bëree ba léegi bëree wax Ada nga wax ah, de waaw moo tax ma man ma aay ci gannaaw bu taxaw di xaar. ñii duñu ma moytuloo kenn parce que seetaan nañ ma bu baax ma ban waaw. ah man raxalu ma loolu dëkk dóor fa yoo ko tas. waa gaa yi ñoo loolu si man maanaam koo xamante ne su taxawee dañ naan tey mu tey ma loolu laay wër si làmb te amaguma ko ba tey waaw ma jël ko. ataaya lañ koy defee fii rek ñaan si ñaan si mu yaatu nice mais on lu mu toog nii bëriwul di xaar ñu muy xaar jëluñu ko kay na ñëw mañ chance ñu bëri ama daane pour on lu fou combat ñu ñu si bëri dañoo am adversaire quoi instant ñoom làmb moo tax quoi ñu ma war a bëri ñu si bëri ñoo am adversaire waaw Nandi Fall war nañ mën a may chance bu bëre wax loolu laam bu neex la waaw pare nañ pour Nandi ak ngi Ngéwél moom gaw mu jël loolu quoi xamante nañ bu baax a baax moo tax waaw xamante nañ bu wér moom du ay résultat ko du dara sax mais dama xam ne du ko jël rek ay mboo xam ni ba Dakar waaw dafa jaadu mais moom gëm naa du ko jël. Ah. man pare naa pour ñëpp caatu ngéwél ak ñi nga wax fi yëpp pare naa pour bëre ñoom ah, ñor na moom bu ko yàqul moom ah, sama début laam waaw jaadu na bu ko yàqul moom moom ak wala ay mbokkam yàqu ko non man xaw ma loolu man waa parcelle kese kese laa dul bëreel si làmb à part ñëpp laay bëreel non non man bëgguma lu nooy bëgguma lu nooy te ñoom ku si jàpp lu nooy ngay nekk te ku ma si jàpp lu nooy ngay nekk bu soobee yàlla si kàttanu yàlla. Ah. Ah. muy. ma kooku moom xaatuma jëlaat. Ah, billaay xalaatuma jëlaat nii boo ko seetee boo jógee fi nga seetee nga wax ko ah, bu pare kon neex na man pare naa loolu léegi la samay mbokk bëgg nag làmb boobu waaw booy Dakar ak caatu ngéwal ku si pare pare naa xanaa loolu neex na man ngay pare naa pour bëre ñëpp si làmb ah avance yi nga nañ bu si ñëw baax bu si ñëw bëgg naa kooku moom kooku moom kooku moom ñeme moom moom Ronaldinho dañ ñoo wax a ba sonn muy xam nga waaw ah, ñeme ma billaay moom combat bu neex la xam bu neex la gars yi di bëgg si làmb te man gis naa ne bañkat la te man boo xoolee booy ma bëral li may njëkk a tànde wala làmb ji yem moom moom naanaan la xam naa bu ma tàndee kon dina jéem a ñu gis bëre sax Ronaldinho waaw gars yi ñoo gis Ronaldinho si boobu moom may daw moom man moom ba ñu débi si làmb ba ñu débi si làmb ba ñu ngi boole muy daw naa nag mun na bañ a nekk sax si moom mais ménageurs yi la sa yenn ménageurs yi moom seen mbër duñ ma ko jox mu ko waaw man du ma moytu man xam nga mooy ay moytoog yooyu man dox ma si yooyu yow xam nga loolu waaw su ma doon moytu du ma ay booy seen avance daa wër fu ne kenn jëlu leen man ñëw ñëw si man rek man naas bu bëre. noonu la demee man ragal ba ragal ma loolu ku ñëw pare naa pour bëre uh-huh. pour ñëpp si làmb képp ku ma làmb boole ñëpp xam ne làmb la ma ak moom pare naa pour bëre yow waaw. Uh-huh. Uh-huh. waaw combat bi sant nañ si yàlla bu baax a baax parce que gars jàpp nañ si ñu mel ni kii suñu grand la muy Mor moom depuis nañ nekk yàgg na see jàpp bu baax a baax ba ñu débuté si làmb ba léegi moo ñuy jàppale xam nga dajale engrais dajale xam nga mën a sam waay gars mi te duñ leen jox njëgu essence duñ jox njëgu dara moom mooy def lépp waaw bëgg nañ sax mu sànni ay kàddu moom moom suñu grand ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax waaw di ko ñaanal mu yokk ko waa moom même pas man lépp képp kuy yëngu si dëkk bi fiis dara rek. moom da lay jàppale ko waa te yàlla tax waaw di ko ñaanal baay yàlla fay ko xolam parce que ñun amuñu fayam wax dëgg yàlla mu ànd ak doomu yaayam xam nga Moustapha ñoom moom duñ ma may dara ko waa dëgg la ñuy dund ak man war na Serigne Touba Mbacke bu gisee nga nekk si benn affaire am ci fula day ñëw jàppale la si bu gisee caaxaan day écarté wu baax la waaw moom loolu lay dund bëgg nañ tam mu sànni kàddu wax si moom moom su suñu gannaaw quoi mënu fee toog ñun ñuy wax rek jëmale suba te moom war wax waaw di ko. gars yi maa ngi leen di ziar yi ñëpp di leen sant di leen gërëm président moor Guy gi di sant waa ànd jàppale sa doomu gox soo déggee waa ànd jàppale sa doomu gox mooy sama place fii unité 21 ak 22 dafay am ñuy toog foofu ñu nekk ay jeunes nekk ay xale yu bari nekk suma ay xarit ñii maa leen mag ñii ñoo ma mag man leen pourquoi ñu war a organiser fii benn affaire ñu ne ma lan la man leen pour ñu. def fii loo xamante ne dañuy def benn affaire boo xamante ne ànd jàppale sa doomu gox lay tudd ñu ne ma sa doomu gox boobu kan lay nekk man leen pour que waa sa Arakonda moo fi nekk xale la ñun ñuy ay xale kooku dañ ko war a mun a jàppale jàppale bi nag nekkul ne ay xaalis wala dañuy jug fii dajaloo nangam sam dañuy dajaloo ñun ñëpp nekk def benn masse bu rëy ànd ak moom buy bëri ji ñu jug ànd ak moom kenn ku ne jénnee ñu ñëw ñu jàppale ko te yàlla tax ndax ñun bu ñu demee di jàppale ci keneen bu boobaa xama defu ñun lu ñu war quoi man ku ma xam ñëpp xamee nañ ma benn nit lañ ma xamee guy gi lañ ma xamee maa moom ànd nañ dix ans xaw ma quinze ans ñoo bokkoon benn oto di liggéey di langandoo nekk apparenté nekk lépp kooku mooy guy gi bu Mor Fadam amul benn bëreem boo may laaj te mënu ma la ko wax jour bi heure bi bis bi kon kooku maa moom yàgg nañ kooku du làmb suma mag la sama xarit la su ma gisee tey ma toog ak ñii dina ne def naa li ma war a def du dëgg fii laa daan jóge di dem géej waaye dafa yenn di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp waaw jàppale sa doomu gox waaw waaw loolu dama koy boole ñoom ñépp ñoom ñëpp laa koy boole mais nag groupe boo gis am na ku ci gën a nekk sa xarit ragal féete day xañ a wërsëg ñoom kenn ku ne su ma la joxee vingt moom dama koy jox cent loolu am naa ci droit ndax suma xarit la du làmb du xaalis du dara sama rakk la sama lépp la waaw ak lan Hmm. waaw. damay jéene samay moyenu bopp mais lu ci ëpp sama ay nit sama ay xarit mooy sama rakk yi mooy ñii ñoom ñëpp dawal kotu moto yëpp yi nekk ci àdduna fépp fu ma dem benn place bu ma dem ne diw diw dafa am làmbu maa géré lépp da ngay yëkkati jox ma ñëw taal moto bu seer ànd ak man ñu yóbbu ko isaat waaw. li ma koy ñaax mooy li may ñaax sama bopp bu ma tëddee di nelaw fulla ak fayda gëm li ngay def man chaque jour damay jël exemple ci sama bopp soo mu gisee fekk ma muy dem làmb dama yor samay ndox di ko xëppoo di ànd di yuuxu ñu bëri dañuy wax ne kii dafay dopewu wala dafay nangam mais boo ma fekkee sama place wala nga fekk ma sama kër da ngay xam ne kii dafa am fulla nit da ngay am fulla si sa bopp gëm li ngay def su gëmee li muy def ñu kon ne di ànd ak moom ba faw bu gëmul li muy def ñu bàyyi ko suñ ko romboo nuyu ko suñ ko rombee nuyu ko mënuñu koo ñàkk ba ñu nuyu waaye buy bëri ji duñ dem te leer na ma leer yàlla man barke alxuraan tagguma sama bopp suñ nekkee cinquante personnes buy bëri ji ma ne quarante yi buñ dem kenn du dem sunu borom moo ma defal lool xale yi déggal nañ ma moo tax mu ne ko gëmal li ngay def ñu jàppale la te yàlla rek tax te duñ ci seet dara nag sant nañ ñëpp gërëm ñëpp jaajëf. waaw grand bi amul lu ñu koy wax du bari foofu maanaam lu dul di ko bàyyi suñu borom kese parce que moom moo am fayam waaw mu fi wax lépp dëgg la ko sant bu baax a baax parce que Serigne Touba di ko ñaanal waaw place am bi tamit xam nga di ko ñaanal bàyyi li mu si bëgg moo xam yàlla na ko suñu borom defal xanaa di sant waa parcelle bu baax. di sant suñu père Birame Ndiaye amuñu fayam Pape Morlo ñàpp na si combat suñu grand Sonatel am na combat le 20 le 20 juillet incha allah di wax waa 22 comme ni ñu ma yóbboo bëgg naa ñu yóbboo ko lu raw moom waaw di ko si ñaanal ndam waaw képp ku ma doon jàppale tam bëgg naa nga ñëw jàppale ko parce que suñu grand la moom moo ñu terte jàpp si loxo terte ñu ba ñu si fii nii si làmb kon moom bu ñu ko jàppale ma lañ jàppale waaw di wax tamit xam nga di sant tamit waa Liberté 4 su mel nii Moustapha Nam jàpp na si combat bu baax di di wax tamit am ni Moustapha tamit ñu koy sant bu baax bu Liberté jàpp na si combat bi am ame Amet Sarr tamit xam nga di ko bégg bu wér Amet Touré tamit jàpp na si combat bu baax a baax di ko ñaanal tamit xam mu moom lu mu bëgg moo xam yàlla na ko suñu borom defal waaw di bëggee sax mafia zéro heure bi mafia bi jàpp nañ si bu baax a baax a baax a baax a baax waaw waa jàpp nañ si bu baax a baax a baax a baax Grand Max bu Liberté 4 waaw di ko wax mu ñëw gën a jàpp ko waa waaw bëgg nañ mu jàpp si daal dugal si loxo mu baax a baax yàgg na say jàpp mais di ko wax di ko gën a ñaax mu gën say jàpp làmb ji di ko may tamit xam nga ku si mel ni waa cees kaso bi nekk Thiès ñoom Mamor Pee bi xam nga ak waa 100 mètres fii leen béggee parce que tamit ñoom dëkkuñu Cameroun quoi Sénégal lañ dëkk di wax tamit gaa yi nekk ci biti gars yi nekk nañ leen di bàyyi xel quoi parce que foofu jombul nit waaw mun nga baax baax ba wër àdduna toj foofu jombula mun nga bon a bon bu bon fu dara nekk te doo fa dugg maanaam foofu bon baax nekk bu kii yóbbu fa nit ko waa waaw coobare suñu borom lay doon rek ak ay ndogalam waaw nattu bu suñu borom teg nit la di ñaan tamit xam ñu nekk ci biti baay ñu bàyyi xel ñu nekk foofu parce que Serigne Touba mbaax parce que ñoo xamante ne duñ sax si gën xool ñu ngi fa am ñoo xam ne dañ leen fàtte foofu bàyyi si biir tàngoor bi tamit foofu noonu mën a sam waay dafa métti tëddaay bi métti mën a sam waay amul ventilo amul dara xam nga te ay doomu aadama ñoo fa nekk gaa dañ ñaan bàyyi xel foofu du pour sax nit barke tu Touba Mbacké dafa tarbaay war na seex Ousmane te ñoom amuñu man la sama waay parole pour wax nii pour nit ñu dégg leen ñun ñu fi neex tamit ñu leen fi neexal tamit di leen waaw ñaanal tamit gars yi leen war na Serigne Touba Mbacké waaw Sambour in ba fu mu gis nga fépp mu métti foofu tar war na Cheikh Ousmane waaw leen ñaanal tamit xama génnee tamit xama man la sama waay yàlla sàmm leen bàyyi ba duñ foofu waaw ñoom tam ñu gën see boole góorgóorlu jombul kenn tamit me tamit góorgóorlu si la bokk waaw moytu waaw di béggee tamit waa parcelle bu baax a baax béggee waa Grand Médine nag fépp juum waaw ñu ngi béggee daal di la béggee yow bu wér a wér a daar yi waaw jaajëfe nooray ne la ilaha illallah jaajëfe nooray ne ur yàlla tajafe nore ne Cheikh Modou Kara dëgg la la ilaha borom daaro nore ne kenn du fi nore borom daaru yaay nore ni la ilaha borom daaru yaay nore ne jajefe nore ne nore ni la ilaha Seex Ahmadu Bamba sant nanu la bu wér wóolu nanu la Seex Ahmadu Bamba sant nanu la bu wér Seex Ahmadu Bamba sant nanu la bu wér kàcce ngalama borom daaru noreni jëjëf borom daaru